Bienvenue sur Salam Vision. bismillah waaye géej gi doo leen tribune yéene kaa ne ñeent ci ay nappkat day waaw daal dina ñuy réeraat nag ci biir géej gi le mardi tali maa la ko musiba amatina de kenn daal lañ for ca diwaanu Mbuur gële waaye gis nga Mamadou Ndiaye Boubacar Diouf Daouda Seck Baye Mbaye Ndiaye waaw danoo réer de réew mi quotidien ne accident yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy am ci biir géej gi day waaw ci ñetti weer lu tolloog ñeent fukk ak ñetti ci ay doomu aadama de dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga ca jamono joojee nga xam ne maanaam ñoom ñoo séq nag élection locale yooyee waaw ña ngay rayante di maar di taali waaw parce que waxtaan di dialogue bi nga xam ne moo ca sous commission dialogue boobee waxtaan nu ñu tax la de ci nopp bii génn ca nopp ba ca des parce que Cheikh mi nga xam ne mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaw nee ngir ñu organiser nag élection liggéey bi daal lu fukki weer ak benn kon la war a durer way Samba moo Njaay Cissé waaw duñ la wax très bien ça les si ko yéene kaa ne de waaw waxtaan ba juboo amul désaccord total kay moom am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ca wàllum date ba parce nguur gi ci boppam day 2022 la bëgg jëmale gaay waaye gis nga bi société civile non alignée ah ñoom dañ na 2021 rek ñàkk nañ seen xeex bi de mar di tali parce que ne élection locale yooyee dàqati nañ ko ko de la ilaha last organisation élection yooyee Macky Sall 2022 waaw ba tey ñu toog xaarle le quotidien yéene kaay ne ajati nañ ko de évidence yéene kaay ne waaye opposition bi de nee na lu njiig nguur ci boppam mooy njaak ca jamono jooje sur quotidien nee na coowal Ousmane Sonko day day delluwaat ci assemblée nationale nag kalaame bi nga xam ne kon député yi kalaame woon nañu ko ngir ñu nii topp bi nga xam ne kon ñu ngi koy topp nag njiital Pastef mi le l'observateur ne en tout coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko day tourné ñaa nga toog seen kër de mardi taali liggéeykat contractuel yi xam ne ñoo nekkoon ca OSA dàq nañ leen la ilaha nooy a nooy na nooy bi day moo de fast track lañ ko indi dee taf taf parce que Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène waaw mujj nañ leen génne ci ne ndaw yi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko Pastef ca diwaanu gi ñoo nekee waaw ñoom tamit génnee nañ leen démb ca kaso ba laa la wax bugaan ngay dani day ci tribune yéene kaay waaw nee na leen seetloo coowal suite ba tëggoo kay lañ na ca biir man daal en tout cas mu suma cee wax man Bougane Gueye Dany le fond non te ba ma ko seete it da ngeen li ma ko wax day wuy ji wala du wuy ji te tam am naa ci moom confiance moom Ousmane Sonko waaye dara pour éliminer Ousmane Sonko la woon rek Bougane Gueye Dany mooy wax du samay kàddu de njiital gëm sa bopp day waaw daal dinay songo attaqué na discours yi nga xam ni kon nañu ko yëkkati nekk ci wàllum xeet diw Bougane Gueye Dany ne président Macky Sall ci boppam moo war a wax ak jege ñaalam yi lee ci seen discours yooyu nga xam ne lu dangereux la ngir jàmmi réew mi njiital gëm sa bopp day waaw nee na ay chef de l'opposition yooyu yooyu ay mbirum caaxaan la gars yi dañ ñoo bëgg a divertir exclusive yéene kay ne candidature Ousmane Sonko de 2024 waaw fam jëm Yankhoba Diattara éliminé na Sonko Madior Fall ma ngay tëyeer machine 24 heures yéene kay waaye gis nga nag buur te Sénégal politique bi dem ay élection sàcc ko ay élection jël ay doomu aadama tëj leen ci kaso wala politique ay policier di ray ndool gi fi ne loolee ci boppam kon moo war a changé laa la wax looloy kaa gi ne waaye nag gis nga politiciens yi lée nekk ci nguur gi opposition bi ah nañ xam ne danañu jàkkaarloo ak génération ay jeunes yoo xam ne la woon woon ni na de la woon woon ni na de ku la neexul nga éliminer doy na waar sur saane ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi ñuy laaj Karim Wade noo ne ci créé bi waaw Macky Sall est que mën naa teg loxo nag fukk ak juróom benn oto Karim Wade yi lée ndax Karim dañ koo daan maître Moussa Sarr ne ah kay nguur gi mën naa nangu oto yooyee bu dee ci turu Karim la ne waaw bu dee oto yooyee koo def ci turu parti démocratique sénégalais koo nangu position bu ñu nangu la Mayoro Faye PDS nee na man de xaw ma oto yooyee kan moo ko moom mën nañoo nekk ci turu PDS wala ci turu Abdoulaye Wade wala ci turu Karim Wade Amadou Gueye day membre MDD la ak ñoo lànk waaw nee na mënul nekk de ay baal Karim Wade ak ay Khalifa Sall ak yooyee waaw te ñu continuer nag naan dañoo bëgg a réew mi nga moralement sax loolee mënta ne lii mën a nekk kay mooy xoolaat seen at bi wala présidence de la république daal di dellu ginnaaw complètement mënuñoo jóg rek ne dañuy voté ab loi Karim Wade kese wala Khalifa Sall kese Amadou Gueye yemu ca ndaxte nee na xam nga Macky Sall daf doon ngand ngandaloo ak a yëkkati ay mbagg ak yooyee final nit leen terroriser waaw waaye boo xoolee ba ci biir day Macky Sall fi mu nekk nii dafa mel ni moo ragal seen taxawaay ci kanamu askan wi lée rama Macky yamu ca dee parce que na ñi nga xam ni président Macky Sall kon da leen a ba pare dañuy daw deuxième waaw coowala Ousmane Sonko li lée dañoo seetlu ne président Macky Sall kon daawee toon lool xale ci boppam sax booy xool ñoom ñoo ko doon défendre rama Macky ne kon nag xale ci boppam war nañ leen a bàyyi xel critique yéene kaay ne 2024 waaw carte gi day changé de parti réew mi léegi changé waxuma la góom la waaye est-ce que seen feebar bi ab docteur du politique mën na koo faj ah te sax doon nañ yaakaar ne Idrissa Seck ak ko fal ca conseil économique ah. dana tax nag ba nit ñi ko doogoog yooyee waaye ginnaaw ba dara gajaga mi nga xam ni ko tekki na ndomba tànkam dem day dee ca faa ngi ni lée di waaj a parti politique am wax dee ca tam day dem day ñu ne déet ni waaye Abdou Aziz Mbodj responsable juridique ci élection yi ci parti réew mi responsable yu bëree bëri nag tribune yéene kaay ne waaye yow mburoog soow moom mbaaru daa mujj safkaani moo ma jaaxal Eli Charles Moreau ci direct news nee na Sénégal gi la nekkul dëkk bu ñuy jaay te nekkul tam dëkk bu ñuy daal yéene kaay gi ne nañu caxa-caxatee nag brèche su ndargee jëlee chinois yi dee ngay takk seeni bagage en tout cas Birahim daal waaw génnee na la fay mitti de ca bël ba Alioune Ndoye day moo lancé woon drapeau ya 12 waaw 7 milliards la jar allahu akbar juróomi weer lañ ca teg chinois war naa indi ay gindi leeral askan wi laa la wax te gis nga bël lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama ñoo fa dee allahu akbar octobre 2003 ak léegi yéeni kaa gi ne kon nag mbir moomee dañ koo war a leeral nguur goo xam ni scandale rek <laughs> waaye scandale lu bël boobee ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy du gën a rëy scandale pétrole bi déedéet moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma la alaaji tëj jërë ngeen jëf élection locale yi ci réew mi wuute wut ak mbayum galas ciw naaj heure bu ñu jiwee bay séentu mu sax bu ñu ñëwee fekk mu seey Le Quotidien nañu muy élection locale yi di élection départementale yi dàqat nañu leen bakkañ yéenekaay bi nañu kenn tanewula ci démb daal ci la jël dogalub reporté leen ci ndaje mi commission politique bu dialogue national bi doon amal enquête yéenekaay nañu mu des nag léegi ñu xam élection locale yi ñu dàq kañ yoon ci réew lu mu laadi laadi il faut que dafay mat fukki weer ak benn mu njaay siisee njiital ONC 3D fare ci société civile gi ne ñu ci rekaay bi xel xalaatu ko mënee suta tuxal élection locale yi ba 2022 Déthié Fall fare ci làngug noon na li di ñu xamal ci xët mu njukko enquête dina kaay ne ñoom ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection locale yi ne ñu ñu ci majorité bi seen bëgg-bëgg moo di wote élection locale ñu yóbbu ko ba ci weeru février atum 2022 Les Échos ne ko waaye ñi ci opposition beeg ñi ci société civile gi ak ñi ñuy tuddee ay non aligné nee dal lu ñu reporter reporter élection locale yi warut a génn ci at mi ñu nekk mu di 2021 gi l'observateur xëy ñu xamal lu ñeen reporté élection locale yi maanaam dàq ko ba jëmi jamono njiitu réew mi Macky Sall jëmmal na ko démb ba ñuy def ndajam conseil des ministres fa la ñu projet de loi bi jëm ci reporté élection locale yi suur soin ñu léegi tey yëf fi yegg assemblée nationale ngir député yi war koo càmbar meneen mbir mu jëm assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum Ousmane Sonko député yi fare ci opposition bi ñoo saisir commission ad hoc ba ñu taxawaloon ci assemblée ba ñuy dindi immunité parlementaire bu Ousmane li ñu bëgg ca neenal maanaam annulé li ñuy toppe Ousmane Sonko recours ba yéen a kaay bi nee nañu ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse moom président assemblée nationale moo war a convoqué yi ngir ñu càmbar ko càmbaraale te mbiri député professeur Issa Sall mi démissionné ci parti pur bi ko defoonub député mbirum Ousmane Sonko ak Adji ñi ci yàqule te seen yoon nekku ci am na lenn ci l'observateur xëy di leeral ubbil yéen bi station Total yi ñu taaloon ah ñu bari ci ñoom dàq nañu leen ndax fa ñu doon liggéeye taal nañu ko kër ga amatul lum leen liggéeyloo amatul it lum leen faye fay ay wi ci réew mi réew mi quotidien nee nañu njiit réew mi Macky ma nga cee dox bu baax baax ngelawal yaakaar mi ngi ëpp ci Sénégal li journal bi bëgg a wax ba tax mu bind loole moo di ñi ñu téye woon ci kaso bi ci yëf yi fi xewoon bàyyi nañu leen ca ñoom ñetti activiste mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ci Sall bëgg na ak jàmm kook dal am ci réew mi Amadou Clédor Sène bokk ci ñi génn kaso démb di ñu wax ci xët mu njëkk l'Observateur ne moom deful benn appel au wootewul jàmm wootewul it ak dal ñu dali ci Vox Populi fekk fa waxtaan wu waa ji di Amadou Gueye bu ñoo lànk xëy def ak journaliste yu journal bi wax na fa ne muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall amul kenn ci ñoom ku mën a amee amnistie ba naan yaa ngi yaakaar a doon président de la République na Sénégal fukki watay huit huit ak juróom-benn ndax wata yooyee Macky Sall dina ci mën a teg loxo ngir dugal ko ci borub 138 yi ko waa Cour répression enrichissement illicite di toppe maître Moussa Sarr ni ci ne bi lu mën nekk la waaye nag ci kaw watay nekk ci turu Karim Wade ne bu nekkee ci turu Parti démocratique Sénégal bu boobaa état bi du leen mën sisir ñu sisir soleil national ba mu dëgër xooli fa programme logement sociaux yu état bu waxe ne cent mille logements sociaux la ñu war a tabax lépp lépp phase bu njëkk bi mi ngi war toll ci soixante mille logements ñoom waa SNHLM nag li ñu bëgg moo di fii ak atum 2023 ñu tabax lu mu gàtt-gàtt quinze mille logements ba jébbal ko seeni borom ñu fekk ko ci xët mu njëkk réew mi quotidien moom directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue mu fay wax ne bëgg-bëgg président de la république Macky moo di doomu Sénégal bu nekk am kër gu mu moomal boppam mën caa dëkk ci fukki million wala gën koo bari ci fukki million ak ñaar kenn ki ñu doon wër di Massoukha Mbengue mi yóbbante woon Abdorok Fatou Kiné Ndiaye libération nee nañu moom mas beng ba mu feeñee feeñalaat na ñeneen ñu ràññee ci benn xale bu jigéen dib étudiant bu nekk fii ci ndakaaru maire beñe la ko tuddee bu dorog bi masaana yegg si ndakaaru moo leen ko doon jaayal moom xale bu jigéen boobee di maire beñe journal bi nañu waa Ocartis ñoo ko rëbb ba jàpp ko ca wakaam la ñu ko jàppee ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom dorog bu tollu ci juróomi téeméeri garam Bienvenue sur Salam Vision.